généraux yi am nañ ci jot jot nañ ci ndigal damay faral di wax ni ñun ay njaboot lañu euh, te njaboot da ngay déglu li sa orientation yi nga xamante ni moom la sa kilifa joxe nga xool noo ko mën a euh, dëgërale ci euh, taxawaay du ñu def dara loo xamante ni dafay woroo ak orientation yi nga xam moom la suñu kilifa di nii di joxe Euh, amaana looy jóg def rek dem waxtaan ci ak ñoom euh, tànk li ngay def waroowul ak ñoom orientation yi ñuy joxe euh, du jar ngay dem bés bu ne di ci wax ak moom ndax ñun dañuy waral di wax ni cadre unitaire instrument la pour kilifa diine yi ci réew mi muy xalif généraux yi muy association islamique tax mu nekk instrument ci ñoom mooy fa nga xamante ni seen tànk diis na pour ñu dox ko walla la nga xamante ni seen kàddu ëpp na fa ñun ñuy seen njaboot ñu yeggale leen fa seen i kàddu ñu doxal leen fa defal leen seen i tànk fa la kon euh, pour indi réponse ci question boobu ñun ay uti ay instruments wu xalif généraux yi ay instruments wu association islamique yi lañu Euh, jaar na fi jëm ci wàll woowu muy naka la ñuy doxale charte bi euh, charte bi idée bu ñu yëkkati la idée nag doo ci jiitu ña nga xamante ñoom ngay doxal ak ñoom waaye objectif bi xam nañ ko objectif bi mooy ñëpp am li ñuy wax code de conduite jëmale ko ci non violence euh, nañ koy dërale nag yaakaar naa ni waxtaan lay doon entre ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal muy woy politique yi nga xamante ni dañu nekk ci opposition mais aussi woy politique yi nga xam ne dañu nekk ci état ñoom ci seen bopp boo ko xoolee amoon na benn charte de non violence boo xamante ni waa opposition demoon nañu fële ca Bignona signé ko waaye ñoom ñoom la engagé en tant que opposition état it di nga gis ne mu ngi woote lu ñuy woote waxi jako dialogue politique jaloog boo xamante ni mi ngi ciy woo mbooleem force vive yi nga xam ñu ngi ci réew mi waaye yaakaar naa li manqué mooy mu am onction mu am euh, cëslaay boo xamante ni kilifa diine ñoom ñoo koy garantir ndax gis nañu heure bu jafe-jafe amee ci réew mi dañuy delluwaat ci kilifa diine yi léeg-léeg wax naa ko sama njëlbeen euh, kàddu ñu bëgg leen def toujours sapeur pompier te damay yaakaar ni ki ngay woo bés bu nekk muy lakk muy fay lakk war na laa mën a digal ba lakk mënatu la am ci dëkk boobu wala boog lakk mënatu la am ci kër boobu kon tey mise en œuvre charte boobu danañ ci woo mbooleem acteurs politiques yi nga xamante ni ñu ngi ci réew mi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ci objectif yi nga xamante moom la kilifa yi am ci préserver la paix ci réew mi maanaam sàmm ba jàmm sax ci réew mi ñu xool yan anam lañ ci mën a jaare point yi nga xam ne ñoo ko war a seex am na ku fi wax waxi nervi yi yaakaar naa euh, dañu war a bannir lépp luy ay milice privé ci réew mi loolu ay taxawaay la yoo xamante ne taxawaay yu mucc wala waroo ak sàmm jàmm ci réew mi la am na Euh, violence gis nañu violence verbale yi fi am léeg-léeg nit yëkkati kàddu kàddu goo xamante ni day yee fitna wala boo kaddu goo xamante ni day woo nit ñi ci fitna loolu it war nañ koo boole ci charte boobu kon charte bi na muy tëddee lañ ca war a dugal waxtaan lay doon ak mbooleem kilifa diine yi ci réew mi ak mbooleem euh, kilifa politique yi ci réew mi ñu nekk ci opposition comme ñu nekk ci état bu ko defee ñu d'accord ci signé ko waaye du nekk signature kese mais da nga koy signé ba pare adopté ko ndax mën ngaa signé dara ba pare génn def loo neex wax naa ne aussi ne kilifa diine yi euh, sama mbokk euh, bu Mouhamed wax na ko sànq du ñu euh, des ci signé ko rek dem taxaw déedéet ñoom ñooy garantir wala boog dañuy def action de veille ngir mboolem koo xamante ni xëtt nga charte boobu ñu mën la wax delloosi la kat sa xel ne la ah yow kat la nga fay waxoon defoo ko. publiquement ñu ne la kat yow yaa nekkul ci loolu tabarakallah kon euh, ci mise en œuvre charte bi incha allah waxtaan lay doon bu ñu ci eggee ak mboolem kilifa dinañ la semaine bii ñëw semaine bii ñu ñuy dugg si incha allah ci commencé waxtaan ak mboolem euh, euh, acteurs politiques ngir mën ko mettre bi ci indi mooy sortie chef de l'État waaw day dugg rek ci li ma wax sànq mooy mbooleem Euh, kilifa politique yi nga xamante ni euh, dañu nekk ci phase boo xamante ni ñii dañuy menacer ñii di di di di di fipp ci loolu lañu gis te te loolu indiwul jàmm ci réew mi euh, kii ne day dina dinaa taal réew mi kii ne ko mënoo maa xoqatal loolu ay jafe-jafe la ñuy jur loolu moo a tey suñu taxawaay bi ah yaakaar nañu ni bu ñu demee ba nga xamante ni charte boobu taxaw na incha allah euh, dootul am kuy xonqatal keneen it du tontu ndax tontu yeeg xonqatal yi ñooy indi euh, li ñuy wax esca escalade ver escalade verbale te escalade verbale mooy indi euh, ay manifestation indi ay ay violence physique ci ci nit kon dañ ciy woo mboolem kilifa politique yi mboolem way politique yi ci seen i kàddu ñu mën a wàññi dangaar gi nit mën naa wax soxlaam nit mën naa wax bébétam ci réew mi nit mën naa wax lamu mu euh, euh, euh, mbébét ci programme politique am sans muy indi ay violence ndax dañuy wax ne wax ni violence mooy l'arme l'arme des des des faibles kon nag dañuy ñaan yàlla lii ñu jëm muy chart boobu mu nekk base liggéey ngir mën a indiwaat jàmm wàññi escalade verbale yooyu Euh, question yi may wax ni wala day wéy waaw ndorteel la euh, occasion bi ko bi ko indi mooy élection yi waaye li ñuy ñaan mooy mu nekk loo xamante ni day sax ndax wax naa ko démarche proactive la ñu bëgg a adopté léegi wuuteeg démarche bu njëkk bi nga xamante ni dañ naan euh, réact dañ naan réagir rek ci événement yi ah te yaakaar ni bu fekkee ne lal nañu charte boobu ba mu nekk charte bu taxaw day fexe ba mu faagaagal mbooleem événement bu mu nekk événement politique wala mu nekk événement sociaux boo xamante ni mën na indi ay ci réew mi nit ñi koy ña seq wala boog euh, way politique ya koy seq war nañoo mën a adopté charte boobu ngir mu mën a faagaagal mbépp euh, problème violence bu am ci réew